star haala toon salam mi konaam ba hush umatgoyi mi konaan bay tun di am mbégte lool ci ñëw gi mu ñëw tey nekk sunu gan ci barab bi tedd bi di ko sant ci yittewoo gi nga xam ne yittewoo na ko lu baax ba tax yëpp jóg ak tànkam ñëw ازتونم تشکر میکنن که dustoshin bian pebinin injoro rifet li itam mbokk islam gi nga xam ne boole na nu ñun ñëpp wa ɗo ɓoore yodavarimi koni ke haɓa mum musalmunim ɓarodarim kadi ko jappu baxti ñoom itam wa as yani mesle barodar chumaromi binan mhm. leen di dégg ci loo xam ne neex na ci suñu xol trop ci seen pas-pas xawar hay ka azatun doori yani xushxaale mun mi kone bëgg gi ñu bëgg diine islam ak bëgg gi ñu bëgg nit ku baax ishritunbe islam wabe odame odamay xube islam yëg nañu xushxaalan azin xushxaal shodan azin yëg nañu fonkeel gu am solo gi nga xam ne fonk nañ ko saalixiin yi nga xam ne ñoo nekk biir Iran و ایشون اخبارایی که دارن که شما چه حد از امامایی که اونجا احترام میذارن اینا دم ایشون از این بابت خیلی خوشحالن که اینقدر احترام میذاری به اماما احترام بابا نیم میگه همین احترام که دارین به اماما شما اونجا تو ایران ما همینو احترام میذاریم به شیخهای ما اینجا واسه همین خیلی خوشحالیم که شما رو اینجا میبینیم امروز که عقیدمون نزدیک به همه اخیدمون اینه که راه خدا باشیم و پیرو پیغمبر اکرمم باشیم و احترام که میذاری به آدمایی که شیخ ها و آدمای مقدس واسه همینم خوشحالن و خوش اومدگویی به شما هم میگن di ko yóbbante nuyoo ci ɓe salaman migan salam ɓe resunin ɓe marrome iran <laughs> ok jërëjëf tachakur bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala muhammad wa ala muhammad من خدمتشون سلام میگم و ازشون خیلی متشکرم که این فرصت پیش اومد و این فضای بسیار معنوی رو ما ببینیم و همونطوری که کردیم فضای معنوی متشکل ساختش به این صورت بوده که خلوصی که در ساخت اینجا برای عبادت و نیایش خدا و رسولش بوده آدم رو ناخداگاه به آرامش میرسونه در این فضا قرار گرفتن و آدم حس میکنه که ملائک در این من مسجد حضور دارن و آدم احساس خوشی داره در اینجا nee na mi ngi sant yàlla di julli ci yonent bi salaa di sant yàlla ci ñëw bu mu fi ñëw ak dalal bi ngeen ko dalal mu ngi leen di sant di leen gërëm ah, na barab bi ni mu ko gisee boo fi ñëwee nee na dalay daa am lu mu lay dolli da may dal yëg na fi lool ak dal gis na ko fi ndax ah, li sos li sos barab bi du lenn lu dul jaamu yàlla ak dundal sunna yonent bi salaa te seetlu na ko fi bi mu ñëwee ni fi gis daal neex na ko te yëg na fi ak dal bu baax sax چیزی که با خلوص نیت در راه دین باشه در راه اسلام باشه ناخداگاه برای همه کشش داره و آدم رو به اون آرامشی که میخواد میرسونه والا nee na bërëb daal bu dee jaamu yàlla moo ko sanc ak bëgg yonent sallallahu alayhi wa ku fi ñëw it di nga ko yëg ما ممکنه از سرتاسر سر دنیا باشیم با تفکرات مختلف ولی هممون این تفکراتمون همه از یک چیز نشأت گرفته و اونم خدای واحد و رسولش هست nee na dëgg la wuute nañ xëy na ku nekk ak fi fi la yàlla teg ci àddina waaye leen na ñoo ko bokk mooy bëgg yoon salaa salaam ak topp yàlla مشخصه که هم همونطوری که محبت اینجا برای ما ایرانی ها وجود داره ما هم این محبت رو بهشون دادیم و این یک حس دو طرفه است mu ne comme ñoom liñ ko waxee yëg-yëg yi bi ngeen am ci Iran ñoom it yëg-yëg boobu la ñu am bi ñëwee fii te loolu mën nañ jàpp ne yëg-yëg bu nekk ci diggante ñaari dëkk yi la yëg nañ ko bu baax sax و این از و کل این کشش و محبت مشخصه چون از ته دل و با خلوص نیت هست به هم nee mbëggeel gi li ko suuxal yëpp mooy yéene yéene bu rafet و من از همینجا میخوام که تشکر کنم این فرصت پیش اومد و این جای به این بزرگی رو ما دیدیم am na occasion bi ñëw ba fii mi ngi sant euh, ci yàlla nu mu ko wërsëgale ak ni ñu ko ko yombalee aussi mu ñëw ziar barab bi از رهبر مذهبیشون خیلی تشکر میکنم که میزبان ما بودن بسیار متشکریم از این همچنین از شهردارشون بابت چند بود و خیلی خوشحال میشیم که دو مرتبه به اینجا بیایم te nee na dina nekk mbégte lool ci moom mu ñëwaat beneen yoon. incha allah euh, هم دست دسته برادری همدیگر رو بیشتر فشار بدیم و مداوم همدیگر رو در آغوش joxante loxo loxo ñaari frère ñaari mbokk joxante loxo bu dëgër و انشالله همه خدا به سعادت نصیب بکنه برای یالا nañu yàlla may mbégte yi ñuy sàkku di ko di ko bëgg و سلامتی شامل همه بشه یالا may ñu wér tamit و همچنین تشکر میکنم بابت کتابی که برای می گی سنت تابیر چی هدیه بین کجا شیخ هستش که به ما دادن هم هم هم تیره این کجا خدا هست تیره این کجا نیه نه سنت هم هم رسول هست هم نه چی تگ یارنتی بیلا درسته که بی یک زبان مختلف زبان های مختلف باشه این ستایش خدا و رسولش ولی منشأ یکیه و همه داریم ستایش رسول nee na ñun ñëpp xëy na bokkuñu làkk bi ñuy làkk waaye nag bëgg bi ñu bëgg yonent bi ñoo ko bokkale و امیدواریم که رسول خدا همه ما رو شفاعت بده nee ci yonent bi tamit ñun ñëpp mu defal ñu safa بیشتر از این وقتشون نمیکنه خیلی متشکرم nee na kontaan nañ lool ci dalal bi occasion bi ngeen leen may tamit bëgg nañ ci ngi leen ciy sant di leen ci gërëm bu baax a baax ok yàlla yàlla شكرا لك اوكي ما من سید علی موسوی هستم و من سید علی موسوی تودو سید علی موسوی این سفر اومدم اینجا و واقعا این چند روزی که اینجا بودم این شهر برای من یه شهر بسیار عزیز و خوبی nee voyage bi mu fi def daal def na Touba mu nekk dëkk boo xam ne Aziz dëkk bu sax ci xolam waaw و امیدوارم باز نامطلب بیام اینجا و یالا مایر کو توفیق مو نوات بنن بتونیم این پیوند دو کشور رو بیشتر کنیم مثلا مو نک رله انتر ñaari dëkk yi fii ak fële